السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنجي نجلن دي نويد لن زيارة بباح تبارك الله في لن دان نيوريك تبارك الله بينك لي أولف نجاي دي وحرق لن لن دي وخ تنغو ندو تيو نيوي نتال إن شاء الله ربي لن دان وخ بابو بليغي تندوخ مو أمسلمي تندوخو كنغم يالا دفنا نك ليغي نيو واركو بايك بروم كيغا خمني موم موكو يليغي incha allahu taala mu décortiquer leen ndox mi ci boppam euh, loo xamante ne nii xëy na ñun ci suñu jëm bopp sax duñu ko mën incha allah muy Cheikh El Hadj si Sy bii tabaarakallaahu nga xam ni moom moo def woon formation bi ci États-Unis am licence ñëw installé Sénégal ngir fas yéene jàppale jàmm yàlla yi ci seen wàllu wérgu yaram moo ko tax a jóg kon ñu bàyyi leen ak moom incha allahu taala. waa adduna maa ngi nuyu ñëpp jàpp naa ñëpp la nga amee jàmm oustaz Mor mm-hmm. ci yow wax dëgg neex yàlla àndaat ak yow tey ci beneen yoon euh, wala décrire rek li nga xamante ni de façon vraiment très li nga xam ne mooy ndox yi yi nag ngeen ko gisee xam naa de li li li njëkk jaaru mooy nit ñi ne ma pourquoi kubéer yi xaw a bari nii pourquoi kubéer yi bokkul yi bu ci nekk ak li muy def mm-hmm. donc li mooy ndox yi bu ci nekk ak sa particularité la mm-hmm. yii da koy gis mu xonk yi dañ koy gis mu orange yi dafay ñuul mhm. yi dafay gis mu bleu yi nga gis ko mu verte mhm. am na aussi bu boobu c'est pour les enfants mhm. lu waral loolu mooy àdduna dañ bëgg nit ñi xam ni ndox toll na foo xam ne ci àdduna war naa war a mën a bopp wane ba wane ba wane boppam léegi li wér mooy ndox bi ci rouge bi mooy bi gën a fort mooy fi ndox yi parce que potentiel hydrogène bi mu àndal mooy neuf point cinq am na yu ko gën a wàcc boo xam ne c'est pour les débutants mooy bu bula bii ngeen di gis ak bu noir so boo ci noppee dañ lay jox bu orange bi moo ngi mel da ngay raxasu rek pare ñu lenkali la hmm. so boo paree ci loolu la da dem ci verre bi hmm. nga xamante ni wax dëgg yàlla mooy gën a booster sa système immunitaire mooy gën a yokk ay ferñeent sa biir yaram waaye également boo paree foofu da ngay jàll ci rouge bi nga xamante ne boobu moom c'est pour les confirmer mooy fi nga xamante ni moom mooy téye sa mooy ferñeent yi rek la yokk doole ba nga xam ne maladie du la gaaw dugg feebar du la gaaw dugg benn pathogène du gaaw dugg ci sa biir yaram yow fu ñu la fekk da ngay nekk santé parce buñ faté ni ce système immunitaire fii mo ngi nek en bonne santé rek yow fièvre mënu la dugg ndox yi nak ñoo ngi ci yee àdduna leen wax ni ngeen oh, ñoo xol ci ndox yi parce que beaucoup tek ndox yi nga xamanteni mom lañ tam nan ak diko tam gis ci Sénégal bo gisé ni mu wanee boppam rek à ah, travers couleur yi mu génn ak yi demee noonu moo lay woné ndox fañ na ci benen anam kon yalla muy dogal dogalat na ndox génnaat ci benen wet ñu ci wo Sénégal yépp képp ko xamne dal soxla nga ci ndox yi wala bëgg nga ci plus d'information information fexal nga wo ci 117 335 17 17 wala nga woo ci 77. 306 306 38 38 15 mbokk yi ñoo ngi noonu loolu asalaamaaleykum loolu lañ leen indiwaatoon tey ci seen ndoxu kàngam tabaarakallaahu jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kon gaaw leen euh, découvrir ko bu leen ko kenn nettali incha allahu taala jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah